VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pipes et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 24. VIP People Dal, vous les di nuyu waa Sénégal yëpp euh, di wax ni dama ñëw fii tey ngir mastawu l'honorable député Farba ci yàqu-yàqu bi nga xamante ni am na ko fii ci biir këram euh, te manifestation yu amoon ci fan yi euh, nekkoon diggante jeunes yi nekk Ngor yenn jeunes yu nekk Ngor ak ay gendarme te ku ne xam na ni li leen jotale woon bu ñu ko mënee waxee noonu mooy benn terrain boo xamante ni euh, ku ne xam na ni terrain bi état bi moo ko moom mais loolu leneen la ndaxte am na ay kilifa yu nekk euh, ci gox bi yu nekk Ngor nekk ay kilifa diine waaye tamit nekk ay kilifa aada ñu rafetlu seen taxawaay ñu jóg wax ci jëf ci jëf ju rafet gendarmerie nationale aussi def liggéey bu mucc ay ci problème yooyu yëpp bi mu amee euh, li tax nag ma ñëw fii ngir masawu honorable député Farba Ngom li am fi moom yoonam nekk ci ndaxte problème nit ak nit ñoo jote problème patrimoine boo xamante ni moom da ko lal waaye problème la boo xamante ni am nañu jàpp ni dañu soxla woon terrain bi pour luñ foora def mu nekk terrain wu état am loo xamante ni tamit état euh, bëggoon na ko cee def euh, muy defar fa caserne pour ben escadron ak ben brigade lolou nek problème bo xamanteni yoonu wax deug yalla muy farba ngom wala benen nit sen yoon nekuti ba ay nit di ci profito ngir di sanni ay cocktail molotov ci bir kërëm leral nako demb dina ci ñëwaat cocktail molotov boko sanni ci kër go xamanteni ay nit dañ fa dëkk yaangi def lo xamanteni c'est un acte criminel ndax bakken mën na ci faatu or amul benn nit boo xamante ne am nga droit jub gis di faagaagal sa morom nit ni yow wala ngay def euh, lenn lo xamanteni day wàññi dara ci yaramam ndax euh, le corps humain il est sacré mais les biens également euh, ils sont protégés juridiquement loolu moy li nga xamanteni mom la bëggono bëggoon a fàttali di masawu di wax nit ñi ni problème bu amé bu ci kenn profito pour régler ay comptes yo xamanteni ça n'a rien à voir avec ce problème là un problème qui concerne un terrain mais qu'est-ce que ça a à voir avec nit boo xamante ni bi ngay dëkk ci kër gi nekkoo ci nguur damay massawu képp koo xam ni yàqule nga ci ay manifestation ndaxte manifestation bu amee euh, am na ñoo xamante ni dañ ciy loru te seen yoon nekku ci moo xam ki war dem ubbi marché ñu yàqal ko mooy moo xam ki war a jàngi ñu yàqal ko moo xam tamit ki nga xamante ni am na bien wu boppam toog fa nekk

ni dinañ leen dem sànni ñoom ñu topp ci sànni xeer sans réfléchir àdduna warul doxee loolu wala ñu ne eh kaa leen dem attaqué kër diw ñoom ñu topp ci dem attaqué kër diw te xamuñu lan moo tax ñuy attaqué kër diw nit bala ngay attaqué këram wala nga koy tooñ wala ngay sànni xeer di ko nga xam yow lan mooy sax problème bi mais am na ñoo xamante ni xaj na noonu la leen yàlla bindee mais ñu leen di fàttali tamit nii nit looy jug di ci dugg lu nekk war nga xam lan mooy sabab bi ba bu la ci euh, dara fekkee muy lu baax wala lu bon nga xam ni kat lii nga lii taxoon nga jóg lii moo ko waraloon loolu moy li nga xamanteni mom la bëggone partager encore une fois di masawu honorable député parce que heureusement d'ailleurs bi muy am nekku fi dafa fekk mu démon euh, Makka umra ji gendarme yi aussi am une réaction rapide bi ñu bi xalé yi jaaree ci plage bi ñeu sanni fi ay cocktail molotov ba mëna sécuriser zone bi yépp mais sama cadeau ci limay may tëjee lay doon moy ñoo bok Sénégal dafa am ay loi ak ay règlement yu fi euh, nekk ñu koy doxal loi ak règlement yoy ñuy doxal nak ala kulli hal ci lañ nara jaar wéy ci te ku nek li nga xam moy sa ak ñu protéger ko li sa yelleef tamit ñu jox la ko loolu moy li nga xamanteni ni bëggoon naa ko wax salaamaaleykum wa rahmatullah je suis venu ici aujourd'hui euh, apporter le soutien de l'État euh, à l'honorable député Farbangom Ngom qui a été victime d'agissement euh, lui ayant occasionné euh, des dommages au niveau euh, de son domicile. je le disais tantôt, heureusement qu'il n'était pas sur place, il était à la Mecque. Et c'est suite à des incidents intervenus entre des jeunes d'un euh, qui avaient, semble-t-il, été sur un terrain. Il se trouve que ce terrain était matriculé au nom de l'État et il y avait un projet qui est toujours en cours d'ailleurs, qui érigeait une brigade de gendarmerie et un escadron. Euh, je dois dire que, et je le salue d'ailleurs, il y a eu des autorités religieuses et coutumières de la zone, euh, entre Ngor, Wakam et Yoff, qui se sont levées pour jouer aux bons, offices afin euh, d'expliquer aux uns et aux autres que dans une république, il y a des lois et règlements à respecter, ce que nous ne cessons de rappeler à toute occasion. Je dois par la même occasion aussi euh, saluer le travail remarquable qui a été fait par la gendarmerie pour euh, rétablir l'ordre public qui a été troublé. Mais cette occasion qui m'est offerte aujourd'hui euh, constitue pour moi un prétexte aussi pour rappeler à l'attention de tous nos compatriotes qu'il ne faudrait certainement pas euh, profiter euh, de manifestations ou d'incidents euh, pour porter du tort à son prochain, surtout quand celui-ci n'a rien à voir avec l'affaire en question. Quand j'ai parlé tantôt des faits, c'était pour mettre en évidence le fait que l'honorable député Farbangom n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé à Gord. Alors, on ne comprend, c'est pourquoi à ce jour encore, on se demande comment a-t-on pu constater que des personnes se sont dirigées vers son domicile pour lui jeter des cocktails Molotov. Je l'ai dit hier et je vais le rappeler aujourd'hui, jeter des cocktails Molotov sur des propriétés privées ou bien sur des personnes pour atteindre leur intégrité physique constitue un acte criminel. C'est dangereux pour les personnes qui manipulent euh, de telles solutions explosives, mais c'est également dangereux pour les personnes qui sont visées. C'est pour cette raison que j'invite euh, ceux qui sont un peu tentés de continuer une telle pratique à le laisser tomber, à laisser tomber, à la laisser tomber, parce que euh, en définitive, cela ne peut produire que des effets néfastes à leur égard. C'est pour cette euh, euh, dernière raison d'ailleurs que je vais terminer mon propos et surtout manifester au-delà de l'honorable député Farbangom mon soutien à l'égard de toutes les personnes qui ont été victimes des manifestations que nous avons enregistrées ces derniers jours dans la zone, qu'il s'agisse des gendarmes qui étaient impliqués dans les opérations ou bien qu'il s'agisse même des populations qui ont eu à subir quelque part euh, des dégâts, ou bien dans leur domicile, ou bien même à, avoir, à, subir des blessures euh, donc, euh, qui ont eu des impacts sur leur mobilité ou sur leur santé. Voilà en résumé ce que je voulais dire et terminer en renouvelant notre soutien à l'honorable député Farbangom, mais surtout en disant que lorsque des manifestations surviennent, il ne faut certainement pas euh, aller dans un sens qui n'a absolument rien à voir avec l'objet de telle manifestation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Michel ministre de l'Intérieur, ci le gouvernement bi ak turu état du Sénégal Je vous remercie de sama tur ak sama Sénégal yëpp ci sa déplacement est quand même en tant que ministre de l'Intérieur xool ce qui s'est passé euh, ci tout le monde, maa ngi la de bu baax a tamit wax dëgg yàlla di la ci remercier ndax lii mënoon na la ci bañ a fekk parce que travail bi ci état doon waroon def def ngeen ko laata may ñëw wax dëgg yàlla di jógee bitim réew di la ci jaar ci jaar ci yow di gërëmaale gendarmerie nationale yépp lépp luñ ci waroon dox di ko def def nañ ko ko y compris vous même en tant que ministre et du gouvernement di gërëmaale aussi président de la république parce que ginnaaw yàlla état bi bu ñuy wax turu état di wax turu ministre di wax turu diw réew noonu lay doxee loolu lépp ci ndigalu chef de l'état la à travers loolu maa ngi koy jaarale ci sa loxo yow mi Antoine Félix Diome nekk koo xam ne ne aussi dëgg yàlla ministre la boo xam ne ne lii dafay firndeel ne rek nan nga jegee population bi ak solidarité bi nga am ci sénégalais yëpp bon li ci des nag wax nga ko man sama yoon nekku ci ci lii xewoon fii ci Ngor waaw mais li am am na ba pare xam naa ne bu doon nit ñi dañ ko tenté walla les gens qui peuvent me déstabiliser ils se sont sax man pouvoir dama pouvoir dama destabiliser dans mon combat politique bi nga xam ne nekk naa ko nii ci kaam ànd ak Macky Sall di ko gunge loolu ku ko xalaat ku nekk bu dee ci fee yi ngay jaarale excès boobu yoon bi nga jaar c'est pas la bonne voie parce que lu mel ni daf ma gën a yokk courage xalaat ne ne xëy na am na ñoo xam ne ne tey mu ngi taxaw di reyante di jóg di wàcc di xeex nguur gi

mais def naa ko ci loxo yàlla te yàlla mi dogal bi muy am fekkuma ci biir réew mi yàlla mi dogal dama ko ci yàlla suñu borom maa maa ngi koy sant di ko gërëm lool. parce que lii mënoon naa xew sama kanam mu jur yeneen mbir yoo xam ne ne danañ dépassé mu nekkaat loo xam ne ne aussi beneen mbir la boo xam ne Sénégal di koy dund. kon damay gërëm samay waajur di sant yàlla euh, di gërëm ñi nga xam ne ginnaaw yàlla lii am na. te fekkuma fii ngeen ñu taxaw ci li ñu war a taxaw te bu ci di taxawuloon mënoon naa gën a métti boobaa bu ngeen ñëwoon ci kër gi yaakaar naa di ngeen ko fekk mu dog mu devenir na ay ay ay ay boyal nañ ko ba mu boy parce que li nekkoon seen yéene taxaw bi ci bunt bi ñu yor ay jaasi yor ak leneen di bëgg naan dañuy daj bunt bi xëy xëy na loolu da leen tëlee kon nag ñoom seen yéene ci ci ci sama kër gi nekkutoon rek li eh, fi jot am moy peut-être ben neeg mo ci mo ci jot tak ba eh, li fa nekkon yep taal lolou yene la bo xamne du mo nekkon seen yene lolou lepp dañ ci sante yalla vraiment wax deug yalla monsieur le ministre dina ci gëreumat encore di gëreumat force l'ordre yep lepp luñ ci waron tax taxaw def ko def nañ ko mo waral dégâts yi vraiment mu mu mu mu, mu yam fi mu yam ni duga dal contant na ci sa déplacement ci turu état bi turu chef de l'état ak turu gouvernement bi yëpp maa ngi la ciy gërëm lool di la ci remercier euh, te lii comme li ma wax rek mënoon na ñàkk coup de fil kese ak boobu ba tey ñu ñu jokkoo doyoon na ma sëkk ak barke déplacement bi nag loolu rafetal la acte de solidarité la te ci sama tur nga nga fexe képp ku lii ku lii daloon yaa ngi ko ci vraiment moom tamit defaale benn déclaration de solidarité ak moom képp ku amoon benn loraange wala ñu tooñ ko ci manifestation ñëpp nga boole boobu kàddu loolu aussi man maa ngi koy rafetlu ñoom it ci tour tur képp ku amoon lu mel nii ci wàllu manifestation boo xam ne sa yoon nekku ci te lii daloon la lu mel ni daloon la maa ngi wax ci seen tour di gërëmaa di gërëm état bi ci seen tour di di gërëmaa le VIP People TV, VIP People TV, le site des grands événements partout à travers le monde. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Pour vos pips et reportages, n'hésitez pas, appelez tout de suite le 77 106 85 2 4 VIP people daal fa lay lépp di leere